voilà mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan si seen euh, site préféré Sénégal 7 TV euh, tey nag euh, comme ni koy faral di defee saa dañuy dox si loo xam ne dafa soxol askan wi. lu jëm ci lépp loo xamante ni ji rek euh, seen i jafe-jafe la wala loo xamante ni ji tamit moom la ñuy dund ci biir société bi euh, tey ñuy doxantu ba fii nga xam ni mooy euh, rond point liberté 6 nga xam ni ku fi ñëw sa xel dina dem ci jànq yi nga xam ni ñoo fi nekk di utum liggéey ci loolu moo tax ñu tey déplacé wu ñëw nag fas yéene laaj leen ni ñuy dundee li nga xam ne rek mooy mbirum liggéeyu jànq ci biir kër yi ak ci yenn barab yi am nañ si benn aja moom ñu ngi jàkkaarlook moom dañ koy bàyyi mu nuyoog euh, askan wi ñuy seetaan euh, rek ñu laaj ko euh, tamit moom nan lay dundee kii bi nga wax tuur bi. man Maam soxna Maam Say tey laaj bi ñu lay jëkk a laaj yow yàgg nga si liggéeyu jàng. waaw ba bi ma nekk xale ba tey maa ngi si sonn naa torop wax dëgg bu ñu jàmm jàppale woon moom dina baax torop parce que liggéey bi moom dafa metti yow bi nga nekkee xale ba léegi nga ci dugg bi nga ciy dugg Euh, liggéey jànq dafa bari façon ñii dañ leen jël pour togg ñi ñu jël leen pour fóot ñii ñu jël leen pour ménage yow euh, ban ban ban ban façon liggéey yi nga liggéey yooyu yëpp da nga liggéey yëpp wala am na boo ci liggéey. yëpp kay liggéey naa ko mais daal moom gisaguma ci avancement ba tey moom wax dëgg yàlla moom histoire maanaam sa jaar-jaar ci liggéey bi mën nga ñu ci nettali lu la ci musa dal loo xamante ni ay teq-teq la te neexu la. loolu moom bëri na moom te du lépp lañu ñu mën a wax wax dëgg yàlla. mais mën nga ñu si rek si li ñu mën a wax. Hmm? man moom wax dëgg sonn nañu moom ku ñu jàppale ñun jànq yi daal ñu jël moom wax dëgg yàlla. Euh, say jaar-jaar mus nga liggéey euh, ba weer de sa patron war laa fay indi lay problème wala ñu jëñ la ah, sàcc. na moos am na parce que fee maris liggéey naa fa ba waayum tabaski mi ñëw kooku fukki junni la ma fukk ak junni ak ñaar la ñu waxante mu bañ ne dul ma fay ma wax ba son këram fayu ma. ba ma demee ma ne ko sama xaalis may ma la ko saraxuma la ko bàyyi naa la nag ak suñu boroom yal nañu yàlla la noonu nga ko bàyyee fayu la ko ba tey fayu ko ba tey maris la rek mën naa leen a yóbbu ba si këram waaw que booba yow lu tax demoo ci wàllu yoon ah, ma ne dama xam ne nguur gi boo si duggee ne da ngay kii da gën a sonn ma ne xa waaye de ku ma sa jàppale woon oo ma jël waaye dafa bañ moom wax rek fayu ma moom loolu yéen jamono la woon bi ñuy waaj tabaski bi rek la tabaski bii paase waaw mhm. ñuy waaj tabaski bi la ma liggéey ba weeru tabaski bi des 10 jours 25000 la ma sa jox ma ma dem jëli sama xaalis ma bañ ne duma ko fay. bu euh, ma dama daan dagg salaire bés bu ma dem hôpital mu dagg ma ko 5000 francs 5000 la may dagg. ma ne ko wax dëgg loolu moom journée sax du 5000 parce que weer 60000 journée du 5000 ba ma ko ko waxee mu ne ma waxante wu ñu woon 60000 te wóor na yàlla moom la ñu waxante fee ci baam ma mais ñoom si jamono yooyu ki fa yóbbu woon bi problème boobu amee lu tax ñëwoo comme ñi nga xam ne ñoo leen coiffé fii. man ñëw naa ba si kooku mu ne ma yaa bàyyi sa bopp te moom sax xamut nu mu demee man dama njëkk a bàyyi sama bopp ñu ne ma naa naa ñëwaat ndax dama mën togg ma delluwaat liggéeyal ko bu ma delloo ba liggéeyal ko mu ne doomam bi ne ko maam dafa mën jëlaat ko ma jëm mu dem. liggéey ba weer bi di kii sama bëñ di miti benn jour laa tëdd rek ma weeri sama yëre yi ma weer yëpp ëmbal ma ko ne ma demal ngay ñibbi. ma ne ah ma ne ko su mu yóbbu ma ba sa buntu kër ga ndekete 25000 la moom mu pa loxo bi ba génnee ma buntu këram jox ma juróomi junne yi tëj buntam ma dem ba sama kër kalkine xaalis bi du noonu ma ñëwaat ci moom mu taalab otoom ne fis ma ne ko sama xaalis may ma la ko saraxuma la ko sama xaalis laa jël si laa ko wax mu may nëbbatu ñu rakkam ñi ne ma dem na fekk na moom ci kaw ki la def loolu góor la wala jigéen. jigéen jigéen ni yow. waaw sama mbokkum eh, jigéen. ci loolu ba tey sa jaar-jaar est-ce que mus nga liggéey ci kër nga dem ba ay jëmm jamono dara réer fa ñu jiñ la ko. dara fa ñu ma ko loolu yëpp dañ koy def mais jànq yi kay lu nekk wax dëgg dañ leen koy jiiñal. yow mus na la loolu. man moom ay jëfu jàmbur moom wax dëgg sant naa foofu. musuñu mën nga bañ a jël ñu jiñ la. waaw loolu moom day am moom am na koo xam ne nag jiiñu ma lu dul ay rosalef ma ne ko rosalef nga xam ne trois 300 lay jar lu may rëy rëy sans lèvre. parce que loolu des fois dañ koy def pour pour pour bañ. waaw na pour euh, loolu pour bañ la fay moo tax ñuy créer scénario yi. ma dama koo tayee tontu ay saagay ndey ak lépp dégg naa ko ci ma ne ko bàyyi naa la yàlla suñu borom jour boobu. bi la jaaru fa li mu la waroon fay fayuloo. moom kay fayoon na moom moom moom 500 la ma desee loon te 500 yi sax may naa ko ko waaye ay Rose à daal la may woo téléphone naa samay Rose à lèvres fu mu dugg xam nga ko ma ne ko bàyyi naa la ak yàlla. 300 xaw boo ko yóbboo sax am ko. soxna si Sénégal ngi lay seetaan adduna ngi lay seetaan eh, tey yow ku la gis xam ne ak sa at yi nga am yàgg nga ci liggéey bi nee nga ba nga nekkee xale ba léegi yaa ngi ci. waaw voilà tey boo amoon maanaam eh, message xalaat boo xam ne ji da koy yeggee sa mbokk yi sa doom yi ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci eh, métier bi. di ci daan seen doole pour dimali seeni i waajur soo leen doon xelal ak ban xalaat nga leen di jox. ah man de moom bu ma gisoon beneen liggéey bu tane liggéey mbindaan bi moom wax dëgg ma jël dadi nag soo jàngul moom doo mën a tëbatëb rek ne yeneen liggéey laay liggéey loolu moom mooy wax bi moom mais moom sama ma beneen liggéey bu dul liggéey jànq yi moom ma jël wax dëgg ah, ba tey laa la wax ñi xam ne dañoo nekk ay ndaw te nekk ci euh, liggéey di liggéey liggéeyu jànq euh, lan nga leen xelal hmm, nañ góorlu rek bu ñu gisee beneen changement ñu bàyyi boobu boobu liggéey man moom wax dëgg du ma nëbbatu su ma gisoon beneen changement bu tane bii moom dama ciy dem moom wallaay ku ma jàppale woon it ma jël ndax dangay feebar war a dem hôpital di faju des fois sa salaire du ko mat loolu moom yëpp a ci biir moom. Hmm. Eh, ci loolu est-ce que yow mën nga ñu wax eh, ci jamono yii nii nii nii nii nii boo amoon loo xamante ni ji da nga koy yeggee kilifa yi ak eh, ñi nga xam ni ay borom barke lañu ci dëkk bi ngir ñu gestu ñi nga xam ni. Euh, ay ndaw lañu wala ñuy du ñuy utum liggéey surtout jigéen ñi lan la ban ban wax nga leen di wax. buñ ñu jàppale woon de ñu jël billaay ñu sante ko yàlla sunu borom sant leen ñoom ñu ñu dimbali tamit wax dëgg yàlla parce que jànq yi son nañ torop son nañ torop des fois nga taseeg ñu baax des fois nga taseeg ñoom loo xam ne mooy loolu loolu moo tax ñu sonn woon na yàlla. patron yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi te di leen jël di leen yóbbu ci biir kër yi ñoom lan nga leen di wax. ñoom tamit de moom am na sa ñoo xam ne moom baax nañu waaye am na sa ñoo xam ne moom la yàlla xam doy na am na ci ñoo xam ne moom duñu lekk ako jànq parce que jànq am na ku ku ragal yàlla moom ak jànq lu muy daj si kër pour na yàlla jànq du la liggéeyal nga koy def yenn yi te man moom bu may liggéey moom damay mel ni dof samay man lu ma kii loo ma kii rek nangu naa loolu moo tax nag kenn warut a def nit lu ko naqari. yow da nga ñëw fi bokk si ñu nga xam ni ñu ngi wut liggéey léegi ci wutum liggéey boobu ndax yow jot nga musa liggéey wala de waa jot naa musa liggéey kay. Mm. depuis ñaati ñaati temps. non jot naa musa liggéey ndax yàggute bu ma bàyyi suma arrêté liggéey bi mm-hmm. waaw. fan nga doon liggéey. Euh, maa ngi doon liggéeyee fii Ngor Almadi Ngor foofu laa doon liggéeyee. Mm. liggéey foofu neexoon na wala metti ah, liggéey moom liggéey bu neex amut. Mhm, liggéey moom liggéey tax nga bàyyi foofu. Euh, damaa xam ne nag liggéey bi arrangé wu ma rek. moo tax ma liggéey jànq la woon. waa liggéey jànq la woon. metti euh, tuuti rek ndax liggéey moom euh, liggéey bu <laughs> bu neex amut. waa euh, da doon fanaan wala da nga doon wàcc. dama doon fanaan waa dama doon fanaan fanaan ma xam ne fanaan bi arrangé wu ma moo tax ma bàyyi ma nekk daal sama benn xarit yebal ma fii si laa ñëw fii nag pour ñu jàppale ma fekk bu ma amee liggéey wàcc lay doon. loolu la ndax yow bi nga jotee commencé liggéey mos nga am ay jafe-jafe si patron bu la fay wala ay jafe-jafe non non jafe-jafe si patron yi ne awama si jafe soo si dund lenn lu metti loo xam ne jafe-jafe non non mosuma si dund lenn lu metti waaw lu baax rek laa si dund waaw moom na nga wax sa diggante yàlla rek waaw lan ngay wax sa mbokk yi nga xam ni eh, say moroomu jigéen lañu te dëkk bi metti na liggéey amul ñuy wut liggéey lan nga leen di conseillé lu ma leen di conseil rek ñu dem si ñoo xam ne ñoo war a jàppale ñit ñi daal ma loolu rek laa am conseil pour ñit ñi daal ndax xam naa ne boo toogee tamit amul sens ndax doo wax ne dangay dem jaay sa bopp tamit loolu yëpp amul sens euh, moo tax ñu suñuy sër daal ñu wut foo xam ne dañuy amal suñu bopp njëriñ ak suñuy parents aussi loolu moo tax waaw. Euh, yow fan nga bàyyi ko ci Sénégal. Euh, Casamance. waaw Casamance laa jóge Euh, liggéey moom ma tax nag jógee Casamance ñëw dakaar bii nag waa yaa ngi fii ak say parents quoi. Euh, ma nekk ma fii samay parents de ma nekk ma fii samay. parents nekk fii. Euh, ma naa sama xarit rek mooy ku fi toogoon. ñu bokk fu ngeen loo waaw ñu bokk fu ñu. moom it Casamance la moom it Casamance la jógee.